محمد صلوات الله في أبد يا كل سارة بنسيرة بالأكرام وفي بثار في الحسنات سيدة للمسلمات مريم moom mi nga xamante ne mooy ki nga xamante ne moo créé moo sos école bi waaye sos gi doon sos goo xam ne rek da koo sos ngir xam goo xamante ne xamoon na li nga xamante ne moo taxoon sëriñ bi di sanc dëkk bi muy dëkk doon dëkk boo xamante ni dëkk jàngale la doon ak yar xam gi nga xamante ne sëriñ bi xam na ko loolu muy sëriñ Moustapha Diatara ba tax mu jënd fii lu tolloog ñaari pàkk def ko rek pour mu doon daara joo xam ni dañ fay jàngee di fa jàngalewaat mbindum sëriñ bi waaye di fa jàngalewaat suñu mbirum àdduna kon dañ koy ñaanal rek fanam gudd ndax ku def lii rek investir nga mais investir boo xamante ni yaa ngi ko jëmee si diine ndax ku ne xam na jamono fi mu toll am am ni wàññeekoo ak tamit jamono ni mu méttee nga jël lu tolloog ñaari pàkk def ko daara sa séentuwoo si dërëm bu si génn kooku liggéeyal goo xamante ni mu ngi koy liggéeyal Seexul Xadiim rek moo waral loolu kon ñu ngi koy ñaanal suñu baay suñu sëriñ yàlla yàggal ko suñu kanam bi ji ay Cheikh Khadim lii nga xamante ni moom lañ dëgmal muy màggale Touba si biir dëgmal gi nga xam ne dëgg dëgmal nañ ko màggalu Touba école bi ni kon war naa waajal li ñuy tuddee 18 safar si waajal googu ñu ni woon nañu jël xale yi ñu jàngalaatal ñu dundum sëriñ bi démb lañ ko commencé woon war kaa defal ñetti fan démb am na sama gan yoo xamante ne ñoo fi jaaroon fa tubaarakallaa macha allah wax ju wax wax fi wax ju am solo ñu may fi dalaloon démb muy sëriñ As Ñang moom indil nañu nasabu sëñ bi muy euh, famille wala askan bi nga xamante ni fa la sëriñ bi bokk fi mu juddoo année bi nga xamante ni fi la juddoo ak fi mu dalee jàngum alquraanam loolu yëpp sëñ bi fi jaaroon démb leeral nañ lañu ko waaye tamit amoon naa fi tamit beneen gan gu ñu tudde Ousmane Fall kenn mun tax sayu xadim soo waxoo xasida waxoon nañu sëriñ bi naka la demee woon ak xasida waaye amoon naa fi keneen koo xam ne muy soxna Mbène Mbàkke nga xamante ne moo nekkaat nii si sama kanam ngam xam dalalaat nañ ko ndax dafa du yoroon point boo xam ni mooy point bi nga xamante ne moo ëpp ci yoon wi muy almuridiya moo taxoon tey tamit dinañ ko dalalaat moom laa féggool yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy seetaan tey sama plateau maa ngi am mat ñetti gan soxna Mbène Mbacke moo nekkee nii toog moom tey lim ñu bëgg a wax mooy Serigne tubaab xam-xam kenn moom mi ngi nekk si collège bi defe naa mi ngi nekk quatrième foofu la nekk muy rabi indaad yi ma feggook soxna Ndeye nga xamante ne da ngeen ma ko ñaanalal bu baax ndax mooy candidat yi nga xamante ni kon candidante la si ñu war a xamante ñooy def BFEM waaye moom moo ñuy wax. الغيب البغرية موي توكي غيغا خامتاني سيرن بي توكي وون نكو سي گيج من اللهاي مدى الغبير ديوال كبير ما لا من اللهاي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 wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin walhamdulilahi rabbil alamin <clears throat> yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di dalal fii ci école Tafsir Mbacke Ndoumbé ci Touba Ndamaatu di école boo xamante ne nii euh, ñi ngi ko sos ci 2005 kii ko sos mooy Serigne Moustapha Diatara ci atum 2005 lañ sos école bi waaye nag ñi commencé njàng mi ci atum 2006 école bi nag. Euh, li tax ñu sos ko rek mooy pour jàngal doomi jullit ñi ak yar leen ci lislaam ak xamal leen seen àdduna ba ñu xam ko looloo tax mu créer daara ji daara ji nag depuis bañ ko créer ci année 2005 ba léegi gis nañ ak yokkute bu baax a baax a baax gox yi nga xamante ne nii ñoo ko wër muy quartier yi ak yeneen quartier yi nga xamante ne nii sori la ci biir dëkk bi xale yi daa jóge fu sori ñii di dem Mbàkke ñii di dem ci yeneen gox yi di jàngi loolu yombal na leen dimbale na leen bu baax a baax a baax ba nga xamante ne ñu ci bari jëlatuñ seeni doom di di leen yóbbu ci gox yu mel noonu ndax daara ji euh, dafa nekk euh, yor programme boo xam ne programme franco arabe la muy franco arabe bi nga xamante ne nii état bi moom moo koy doxal nga xamante ne bu ñu demee ba xale yi def war def examen dañ leen yóbbu ci état bi fa la ñuy defee examen même diplôme yi nga xamante ne ni moom la euh, école état bi di am. xalé yi nga xamanteni ne nii ñooy génnee diplôme yooyu lañu am ñu nak commencé nañoo participer depuis 2012 ci examen yooyu muy entrée en sixième ak CFEE wax dëgg yàlla bañ ci dalé participer légui ñi ci am ay résultats yu baax génnaguñ boobu ba légui lu moy 80 jëm kaw ci lool lañ nekk daara ji diko dox bi mu démé nak ba nga xamanteni amna cycle primaire bi ba mat ñu commencé cycle seconde bi moy euh, cycle euh, euh, am ñu am CM. ci biir CM boobu am nañ ñeenti classe yëpp sixième cinquième euh, quatrième troisième te am na xale yoo xamante ne nii ci année deux mille douze deux mille ñu ngi fi doon def BFM te muy juróom-ñaari xale yoo xamante ni fi la ñu amee BFM muy BFM boo xam ne diplôme état la ba nga xam ne yenn xale yi ñenn ñi ñu ngi lycée Mbacké ñenn ñi ngi Dakar lycée Limamou Laye tasaaroo ci lycée yi am na ñoo xam ne sax ñu ngi def ay formation de santé ci biir dëkk bi ak ci yeneen gox. ren jii tamit yàlla def na ñu am classe CM2 ak classe troisième di ñaan yàlla suñu borom defal ñu tawféex bu baax a baax ci daara ji liñ ci sàkku ak liñ ciy wut ndax nekk na ba mu fi ñëwee ba léegi daal nekk na loo xam ne yombal na waa dëkk bi seeni jafe-jafe yi nga xam ne nii doon nañ ko am ci wàllu jàng ak yar seeni doom daara ji yombal na leen ko daara ji nag comme ni ngeen ko gisee nii rek moom ay mbiram yëpp dafay faral di def ay activités ci chaque année. lépp loo xamante ne nii xew na ci dëkk bi ñu ciy jéem a tàggat xale yi di leen ci yar comme lu mel ni ki màggalu Tuubaa yi bis bi nga xamante ne moom la def muy bisu euh, safar bii di jublu si ñu koy gàttandu ci ay fan yoo xam ne dañuy def ay waxtaan di def jàng alxuraan wàcc ay kaamil di def ay duruus euh, bu ngoonee xale yi ñëw fii ñu def ko li mu ñetti fan yoo xamante ne nii ci loolu la ñuy nekk loolu daal ci tënk loolu laa bëggoon a wax ci daara ji di rafetlu seen taxawaay yéen waa Touba TV di ñaan yalla suñu borom fay leen ci seen dik bi ngeen fi dik muy dik bo xamante ni nii jamm ak salam lay doon yalla suñu borom yok xewal yu baax a baax di sante kilifa télé bi ak kilifa rajo bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah aouzu billahi minash asheytaan rajim Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter l'Institut Tafsir Mbaki Noubé. L'Institut Tafsir Mbakinube est créé en 2005. Euh, il se situe à Ndamatou. L'Institut Tafsir Nube est une réalisation de Serine Mustafa Diatara, chef religieux à Touba et conservateur de la, euh, bibliothèque islamique de Touba. Serine Mustafa Diatara est un inspecteur de l'éducation. Il a longtemps servi à l'Institut Al-Azhar de Touba sous l'égide de Serine Murtada Mbake, Ibn Khadim Rasoul. La communauté musulmane lui rend hommage et prie pour qu'Allah lui accorde une longue vie, doublée d'une bonne santé, afin qu'il puisse mener une œuvre accomplie au profit de la Ouma. Bon, l'Institut Tafsir a des objectifs. Euh, objectifs euh, sont au nombre de deux. C'est enseigner et éduquer. L'Institut Tafsir a deux objectifs principaux. Répandre le savoir dans la Ouma, éduquer les musulmans afin de les inscrire définitivement sur la voie conforme au préceptes de l'islam. Voilà, cette école aussi a un programme bien défini. Le programme de l'Institut est celui des écoles franco-arabes de la République du Sénégal, établi en juillet 2002. On y enseigne également le Coran. L'Institut prépare ses élèves aux examens CFO, certificat de fin d'études élémentaires, à l'entrée en 6e et au BFM, brevet de fin d'études moyen. Par conséquent, il dispose d'enseignants bien formés et de trois cycles préscolaires préscolaire. Bon, il a, euh, bon, on peut présenter ces, différents cycles. Il y a euh, le maternel. Le maternel euh, comprend deux, trois sections. Il y a la petite section, la moindre section et la grande section. Ensuite, il y a l'élémentaire, c'est du CI au CM2. Ensuite, il y a le collège, c'est-à-dire de la sixième à la troisième. Donc, cet institut aussi a des perspectives ces préfixes, euh, c'est l'ouverture d'un cycle secondaire, mais aussi euh, des formations en informatique et pourquoi pas même des formations en comptabilité. Voilà tout qu'on peut dire concernant cet établissement. Merci. waaw alors auzu billaahi mina sheytaani rajiim ginnaaw bu ñu sante di fas yéene wax ci ñetti fan yi nga xam ne moom la ñu taxawal di nekk loo xamante ni ñetti bis loo xamante ni école bi yàgg na koy def man na ne at mu jot def koy def ren nag macha allah ñu rafetlu woon ko def ko ñetti fan. jàppoon ko altine talaata ak àllarba mu nekk loo xamante ni lu rafet la ñëpp rafetlu ko tàmbali ko démb macha allah mu doonoon tamit lu rafet biñ ko defee tamit taxawal ko ñu invité woon ci suñuy naataango yeneen école ñu ñëwoon fii démb ñu waxtaanee war seen doon di waxtaan tamit ay thèmes démb waxtaan fa ñetti thèmes booy waxtaan nañ fi sëñ Touba jaar-jaaram fan la jaar. waxtaan tamit lenn ci nga xam ne am bindum sëñ Touba la waxtaan tamit yenn ci nga ni ne ni ah, nu comment dirais njariñu màggal gelek yooyu la bu fekkee bisub tey bi tamit noonu lañ ko wéyee di ko doxalewaat dañ siy invité suñu yeneen naataangoo école tey ñu ngi invité école euh, sëñ Moustapha sëñ Moutara Mbacké bi nekk Daru Guy Mbind ñoom ñoo fi war a teew tey tey nak gis nga ñi nga xamne ñoo nek ci kaw plateau bi tok ni fas and euh, euh, ak suñu oustaz tala ak suñu ngi suñu élèves yi nga xamne ne macha allah ñoo def geustu be yoy yep fas yéene waxtaan tey jii sëñ Touba manam mo xasida ak njariñu màggal li ak xam-xam fan la ko tegon lool tamit dinañ ko leral tay ji suñu demé bisub suba nek ci lañ fas teunk and ko yeneen oustaz lu melni ne oustaz nya ak yeneen oustaz xam dañuy bayiko mom fi nyi lay jàngale ci école bi ñu tënkal ñi fi lool nga xamne ne lañ nañu fas waxtaan ci ñaari fan yep muy dembo ak tay su ko suba lool lañ ci waxtane ci kaw lool nak invité nañu manam ay gan yu am solo bokkon na ci seigne Aliou mbake mi nga xamne mo yor walum doxum Touba bokkon na ci inspecteur Cissé mi nga xamne mo jité lepp lu walum jang ci département bu mbake momi suba nañ fi teewal inshallah rabbi kon programme ni noonu tëddee